daa leen ko wax di yàgg naa leen ko wax di ngeen am da nga am taw taw xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk a xas ci xas na xaas la ñu am xaas la ñu am bu wér wér ngeen dund ci fàggu waaye nag dañ ko bale xaas ngeen am waxuma taw feex taw feex ku bëgg sëñ Tuubaa xaas ngeen am waaw incha kon bala ngeen di teewlu rek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 an rasulillahi jëlee ci yonentu yàlla bi sala yàlla na sax dàkk di julli allahu yàlla taala yàlla mu aji kawe ali ci moom ma dooli ko wóolu xaala wax na moom yonent bi na yaa aba hurayrata e yow abi hurayrata isaa tawadaat saa boo jàppee ba noppi saa boo jàppee ba noppi faxul neel bismillahi rahmaani rahim fa innaha fasataka naka malaaka mi nga xam ne moo lay wëttu tastarihu aaw du noppalu mukk an takkutu di bindal lakka ñeela ala sanaati ay rafet rafet xataa tafooxu bam kawe de ne ko yow abi hurayrata mu ne nettal nañ jële ci yonent bi sallallahu alayhi mu wax abi hurayrata na ko boo jàppatee ba noppi na wax bismillahi rahmaani rahim nee na ko sunu borom du dañ mukk di bindal ay rafet rafet aaw ba doo xam sax nu mu toll de mu ne ko wa isa xasita su fekkee nag jotee ngak su fe su fekkee sàngoog nga xalaka say soxna mooy jote nga ak ñoom rek ah, a foqul neel bismillahi rahmaani rahimi fa innaha fasataka naka malaaka mi nga xam ne moo lay wëttu yàkkatu boona dana bindal laka ñeel alasanaati ay rafet rafet xataa tax si la ba kere ngay sangu minal janaabati janaaba fa in xasala mooy bu sosoo rek bo amee laka aaw ci jote googu nga jote sa soxna min tilkal muwaqaati bàyyi ko ci boobale xew-xew boobale tàbbuwaay te mooy jotee ba bu ci sosoo wala dun doom kutiba des na bindal la ka ñeel alasanaatu ay rafet rafetam ay rafet rafet bi adadi anfaasi saarikat wala di lu toll ni kem limi nooy boobale doom wa bi adadi anqaabi ak lu toll ni kem limi waaw ay njabootam moo tax mu ne ay limi damu suriyati ay njabootam in kaana su fekkee am na loxo ñeel ko xaqibun li nga xamee ne moo di njaboot xataa laa yabqa ba du des minum njaboot ci aadun kenn lu dul bindal nañ la ko ay xasanaat ay rafet rafet de mu ne jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na yow abi hurayrata saa boo jàppee ba noppi waxal bismillahi rahmaani rahim mi nga xam ne moo lay wërtu lu noppalu mukk di la bindal ay rafet-rafet de ba doo xam sox num toll waaye saa booy jaaxasoo sa soxna waw na nga wax bismillahi rahmaani rahim nee na boo tuddee bismillahi rahmaani na malaaka mi nga xam ne moo lay day sax dàkk di la bindal ay rafet-rafet ba kere ngay dem di sangu janaaba diir ba ngay jaaxasoo sa soxna yépp ak ba nga noppee yëpp ba kere ngay sangu janaaba malaaka mi du dañ mukk da la bindal ay rafet rafet te jotee gongo jotee sa soxna bu ci doom sosoo dégg nga sun borom subhaanahu wa taala la bindal ay rafet rafet yow abi hurayrata aaw doom ji ci sosoo nooy bum nooy rek dañ la koy bindal ay rafet rafet loolu de kenn xamul nu mu toll moom gi nooy rek ba kere muy génn aduna aaw dañ la koy bindal ay rek. dañ la koy bindal ay rafet rafet de loolu de kenn xamu nu mu toll su fekkee nee doom jooju am na doom de am na njaboot kenn ci njabootam ji kenn du ci des lu dul nañ la ko ay rafet rafet de. waan abi hurayrata jëlee nañ ci abi hurayrata radi yàlla na doole gërëm alaaw yàlla taala yàlla mu yaa ci kawe anu wëlis ko de ana nabi mu jëlee ci yonent bi sala yàlla nu julli alaaw yàlla taala yàlla muy aji kawe ali ci yonent bi wasalaam tumu dolli koolu mu ne maamin ahadin amul kenn ko xamee ne yaxsidu dana jublu duxula baytin tàbbi li nga xamee ne ah moo di néegam de wala këram rek duxula baytin tàbbi li nga xam ne moo di néegam ilaa ludul rek wayet ba xoo topp na ko a saytaanu saytaanu fa in daxala bu tàbbi albayta ca néeba fa qaala kon na wax nag bisimilahi rahmaani rahim su ko defee qul daa di wax seytaanu saytaanu laa ma daxala déet benn tàbb lii di ma ñeel fi asal bayti ci bii néeg de ba tey xadis bu am am solo la mu ne jëlee nañ ci abi hurayrata yàlla yàlla doolee gërëm ko mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne amul kenn ci ñun koo xamee ne dana tàbbi néegam lurut saytaane ma nga topp de kon nit ki fu mën a bàyyi ko rek buy dugg ci néegam saytaane nga ko topp ci gannaawam de léegi nag booy tàbbi ci néeg bi na nga wax bismillahi rahmaani rahim su fekkee da ngaa ñëw rek dugg nu ko ñenn ñi di defee sama mas gi saytaane ànd ak yow aaw na la tey moom fii lay fanaan fii lay jikk du ma génn mukk waaye nag boo tuddee bisimilah rahmaan bi rek mu daw génn kër gi bàyyi la fi kon nag kenn ku ne booy dugg sa néeg rek na nga wax bisimilah rahmaan bi seytaane daal di daw la ci saasi génn kër gi lépp abat la de waaye nag boo ko waxoon rek mu dugg yow ci biir néeg bi nga lekk mu ànd ak yow nga sëy sa soxna mi ànd ak yow lépp yàlla nañ ci yàlla musal de moo tax mu ne amul kenn ci ñun koo xam ne dana jublu a ah, di dugg néegam lu dul seytaane ma ngi ko topp de. kon nag bu tàbbi ci nii bi na wax bisimilah rahmaani rahim su waxee bisimilah rahmaani rek seytaane duum fi tàbbi mukk ndax wax na bisimilah rahmaani rahim de. wiisa xuddime nam jiital ne ilayhi jëm ci ma attaxaamu ñam fa xaala ba tey na wax bisimilahi rahmaani rahim de. mu ne ba tey booy lekk li nga xam ne ñam na nga njëkk tudd bisimilahi rahmaani rahim bañ a tudd leneen lu dul bisimilahi rahmaani rahim waxoon nal nag lu mel ni lekk ak naan boo ne bisimilah rek mu daal di baax mu ni su ko defee nag yaqulu dana wax a saytaanu saytaane ne laa taxama déet beete xenn benn xeeti ñam lii di ma ñeel xaw naa fii de mu ne saa boo xam ne yaa ngi lekk tudd bisimilah rahmaani bi saytaane day dal di daw ne ñam bi awma ci soxla ndax ba nga ci suddee bisimilah rahmaani bi de waaye contrôle bi ba tey noonu la de booy lekk boo tuddut bisimilah rahmaani rahim rek seytaane kontaan di lekk ak yow loo lekk rek dafa mel ni ci bopp seytaane nga lekk te yàlla nañ ci yàlla musal loolu dalay yóbbu jëla ko ci di la ci wàllu mooy yàlla moo tax mooykati yàlla yu bari loolu moo ko waral la yónentu nee nañ képp kuy lekk lu haram wala luñ sib lépp loo xam ne daggaloon nga di ko lekk rek bu la ak bu la neexee yëpp mooy yàlla danga koy miin waaye kuy lekk lu dagan di sol dagan rek bu la ak bu la naqaree topp yàlla danga koy miin. way saa xuddima ndem ji ndem jiital nga ko asa ndem ndem jiital nga a bu naan waxaala na nga wax bisimilahi rahmaan rahim yëqoolu dana wax saytaanu saytaane laa sara ba déet benn ak naan lii di ma ñel xaw naa fii de ba tey ndox bi di baaw sa ndox mi soxlu mu ci de naka noonu boo waxul bisimilah daan bokk yow ndox mi moo tax ma ne isaa xudima saa boo tàmbalee asara bu naan wa qaala na nga wax bisimilah rahmaan rahim su ko defee yëqulu dana wax saytaanu saytaane laa saraab déet benn naan lii ñeel xaw na fii ndox mi aw ma ci soxla wa isa tajaha wa isa tajaha saa boo xamee yaa ngi tëdd wa qaala wax bisimilah su ko defee yaqulu dana wax seytaanu seytaane laa ma da jaxaat déet tëdd waay lii di ma ñeel xaw naa fii de booy tëdd sab lal boo waxut bisimilaay rek seytaane mi ngi ànd ak yow tëdd ci lal bi loolu moo waral nag biddanti yeeg nangam ak yëpp fekk seytaan lan rek waaye boo ne bisimilah rek mën ngaa bana biddanti bu fekkee ab jullit bu nam julli fajar nga ak caaju mu ne saa boo xam ne yaa ngi tëdd sag lal na wax bisimilah seytaane dana wax ne du ma tëdd mukk ci lal bii de gannaaw ba nga xam ne tudd nga bisimilah rahmaani rahim nekkul kuy ñalaw gudd rek nag kuy dugg sa néeg booy tëdd ci lal bi sax wax ko donte bëccëg la sax wax de moo tax ma ne wa istardarta jaha saa boo xam ne yaa ngi tëdd waxaala na nga wax bisimilahi soo waxee bisimilah yaqulu dana wax seytaanu seytaane laa mat jaa déet benn nag tëdd waaye lii di ma ñeel xaw naa fii de mu ne wisaa taraka ndem bàyyi nga nag a tasmiyata wax inda du xooli fa ngay tàbbi sa néeg daqala dana tàbbi sa néeg bi ma woo ànd ak yow a saytaanu saytaane nee na booy dugg sa kër nag ah na nga xam ne de saytaane mi ngi ànd ak yow de te boo waxul bisimilah rek bo bàyyi wax bisimilah rek mi ngi ànd ak yow yàlla ñu ci yàlla musal kon moo tax mu ne ko saa dugg nag na nga wax bisimilahi rahmaani rahim moo tax mu taraka boo bàyyi nag atas wax bisimilahi rahmaani rahim xëy na fa tàbbi sa néeg daxala dana dugg maaxoo ànd ak yow asaytaanu saytaane wa isaa taraka boo ko bàyyi moom bisimilahi rahmaani rahim hendal akari ba ngay lekk yaakulu dana lekk maaxoo ànd ak yow asaytaanu saytaane mu ne ba tey booy lekk te waxoo bisimilahi rahmaani rahim saytaane mi ngi ànd ak yow di lekk tiib boo lekk rek na nga xam ne tiib boobu saytaane nga lekk moo tax mu ne wa yakunu dana nekk baxdul mawludi lenn ci ñu ñu jur ñi muy doom yi bi sababi ixtilaati maa yi ci sababu jaxasoog li nga xamee rek moo di ndoxam ma sa nii man di aji ñaaw jiko wo bax doo lenn ci ñoom axma di aji sol maxa gumba mooy koo xam ne benn bët bi moo part wa bax doo dégg nga wo bax doo lenn ci ñoom ax waru di aji part ba tey buñ na axma mooy ñaari bëri sol maxa buñ na ax waru nag mooy koo xam ne benn bët baa dem kon firi moom lañ am wutee moo tax mu ne ba box doo lenn ci ñoom ëx ma aji sol ma xala mooy ñaari bëri yëpp waaw dañoo sol ma xoo box doo lenn ci ñoom ax waru dafa pat mooy benn ba dem benn ba des fa ba box doo lenn ci ñoom ax rajo di aji làgge mooy koo xam ne tànk bi day soox waaw ba box doo lenn ci ñoom faasixan di aji génn topp wa bax doo lenn ci ñoom di aji weddi yàlla wa xayri saalika ak yu rut lim fa fi misli haasa kem lii rek moo koy waral moo tax mu ne xaala wax ne allahu yàlla taala yàlla mu yaa ji kawe wasaarikum dana bokkaale ak yéen fii am wàlli seen alal yi wala awlaadi ak seen doom yi ayatan waaw ma ngi ci de sëñ wax na ne kon saa booy lekk na nga wax bisimilah rahmaani boo bàyyee ca waxtu ngay lekk wax bisimilah rahmaani seytaan day lekk ànd ak yow mu ne booy xool lenn bari jukk ju ñaaw ju ñor ñi ngi ko jëlee ci jamono ja nga xamee ne ah waaw moo xam jur wala nangam jamono jëmi sëy waxut bismillahi rahmaani rahim te bu waxut bismillahi rahmaani ndox may génnee ci moom di dem ci ku jigéen ka mi ngi jaxasoog ndoxum saytaane su ko defee nag bu ca doom sosoo rek mën naa doon doom ju ñaaw ju wala lu mel ni koo xam ne dafa jur doom. doom ji indaale ay bët yoo xam ne dañoo sol maxa looloo koy waral lu bari wala benn bër ba dem benn bër ba nekk fa wala benn mu juddu ba di sox wala nag lenn ci ñoom ba noppi juddu doon lu ñuy wax faasix mooy ku génn topp wala mu doon yéeféer lu mel noonu yëpp ci lii rek lay bàyyi ndax sunu borom ma wax na seytaane dana bokk ak yéen seen alal yi ak seen doom yi kon ci ci loolu lay juddoo de moo taxoon wa yakunu dana nekk baxdul mawludi lenn ci liir yi bi sababi ixtilaati maa yi ci sababu jaxasoo ndoxum saytaani ma waaw moo koy waral su ko defee sànni man muy aji ñaaw jukko wa baxdoo lenn coom axmaa di aji sol maxa wa baxdoo lenn coom ax waru di aji patt wa lenn coom axraja di aji làgg mooy di sox wa baxdoo lenn ci ñoom faasixan di aji génn topp wa baxdoo lenn ci ñoom kaafiran di aji weddi yàlla wa xayru saalika ak yurut yooyu ma la limal su fi misliha saa rek moo koy waral de ñàkk a tudd bisimilah boo soxna. xaala wax ne allahu yàlla taala yàlla mi aji kawe wasaarikum dana bokkaal ak yéen fil amwaali ci seeni alal yi wala awlaadi ak doomi ayatan aaya la kon wa an jaafar abni jële nañ ci jaafar muhammad rahimu yàlla na doole yërëm ko allahu yàlla taala yàlla mi aji kawe nee na dana dana toog ak seytaanu seytaane ala sakari rajuli ci kaw sakarab waay fa isaa lam yaqul saa boo xamee ne nag waxul bisimilahi jaama xamu booloo maa woo ànd ak moom imraato soxnaam wa an salata muy wàcc fi farja ci biir pëyam kama yeen sulu comme ni muy wàccee arajulu waaja aaw ca ndaw sa ñeneen jëlee nañ ci Jaafar ibnu Muhammad yàlla na ko yàlla doole yërëm dégg nga yàlla mi aji kawe jëre Jaafar ma wax ne seytaane ci boppam day toog ci sàkkara nit ki bu tuddee bisimilah seytaane wàcc daw bu bañ wax bisimilah nag bu bu góor gi sëyeeg soxnaam rek ni nga xamee ne mën yoom noonu lay aaw demee ci biir awra ndaw si seytaane noonu lay defee mën yoom ba tey mu def ko su ko defee ñu jaxasoo yal na yàlla musal ci loolu kom ni nga xamee ne góor gi noonu lay wuññi awraam dégg nga noonu lay seytaane di wuññi awraam soo waxee bisimilah rek suñu borom musal la ci nag soo waxul bisimilah yéen ñaar yéenay bokk aaw seen xawri yi jax nu ci musal moo tax mu ne yellu su dana toog a seytaan seytaan ala sakri rajuli ci kaw sàkkara góor fa isaa lam yoqul bu waxul rek bisimilah jaama xamu booloo maa wa ànd ak moom imraatoo soxnaam wa an sala tamit wàcc fi war jàcc ak pëyam kamaa yun si lu kon mi wàcce arujul waajere ni waaji di wàcce ci pëyu ndaw si rek nuu lay seytaan di wàcce ci pëyu ndaw sa so waxul bisimilah de te doom bu ci sosoo nag lu ne mën lu ne mën na ko ca fekk. wóoru wee nettalees na ne ana rajula waaye xaala wax na ne ibnu abbas radi yàlla na doole gërëm allah yàlla taala yàlla mu yaaji kawe xanu maa wëlis leen ñoom ñaar ñoom ñaar ne inna imraati naka sama soxna istayqas istayqasat yeewu na wa fi farjaata nekk na ci soxla tanaarin tàkku tàkku safara xaala wax ibnu abbas na ko saali ko loole min wat i seytaani mooy laaluk seytaane isa aratu saa boo xamee ne namm sa soxna jimaaha mooy booloog moom saa boo xamee namm nga jimaaha booloog moom foqul waxal bismillahi baata bismillahi nee ne net lañ na benn waaye dafa ñëw wax ibnu abbas na ko man daal tey daal sama soxna dafa yew rek oye mel ni dafa am safara su ci bee di tàkk Ibn Abbas na ko loolu de saytaane la xam naa ba ngay tëdd ak moom waxoo bisimilah moo tax saytaane moo ko laal de moo tax pëyam am safara su see génnee Ibn Abbas na ko léegi nag saa boo xamee ne bëgg ngay boolo sa soxna balaa ngeen di booloo na nga wax bisimilah. waru ya nekk les na an rasulillahi jëlee ci yonent bi yàlla bi sala yàlla julli alaahu yàlla taala yàlla mi aji kawe ali ci yonent bi wa salaam te dolli ko wóolu ni annahu naka moom xaala wax na ne si turuma baaraas bi nga xam ne baynakum moo dox seen diggante wa baynal jinni ak diggante jinni yi an tuqulu mooy ngeen wax bismillahi rahmaani rahim nee ne nettali nañ jëlee ci bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne baaraas bi dox seen digganteeg yéen ak seen digganteeg jinni mooy ngeen wax bismillahi rahmaani rahim saa bu ngeen waxee bismillahi rahmaani rahim dafa mel ni da ngeen jël baaraas doxal ko seen diggante ak seen digganteeg jinni ba duñ leen gis de waaye bu ngeen waxul bisimilah rahmaani rahim rek baaraat boobu daana ngeen ko xaawi ngeen ko sutur suus xaawi ngeen ko. waxaan fu jëlee ci yonent ba tey sala yàlla julli alaaw yàlla alayhi ci moom wa salamatu mu dolli kóolu ànd xoo naka moom xaala wax na ne sitruma ba tey baaraas bi nga xamee ne bay na ah yunul jinni moo dox diggante bati jinni yi wa ba nii aadama ak sikki-sikki doomu aadama yi te mooy xawraay doomu aadama yi isaa waddu hondem sangoo ngeen isaa waddu hondem tëral ngeen si aabuum seeni malaan an jequloo na ngeen di wax bisimillahi rahmaani rahim ba tey mu ne jëlee nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne kon bisimillahi rahmaani rek mooy sutur si nga xamee ne nit ñi moo dox seen digganteeg bëti jinni yi ak seen digganteeg xawraay doomu aadama yi de kon nag bu tëdd bu ngeen ba sangoo seeni malaat na ngeen wax bisimilahi rahmaani rahim su ngeen waxut bisimilahi rahmaani rahim rek mooy xaawe ngeen seeni awra kon sutura si nga xamee ne moo dox seen digganteeg bëti jinni ak siki doomu aadama yi ak xawraay doomu aadama yi mooy bisimilahi rahmaani rahim bu ngeen ko waxee rek aaw sutura soo suñ borom muur leen ko waaye bu ngeen ko waxul rek seen sutura mën naa xaawee ko kon nag bu ngeen demee ba sangu. jël seen yiri yi teg ko seeni kaw na ngeen di wax bismillahi rahmaani rahimi waman akala koo xamee ne dafa lekk waman akala koo xamee ne lekk na al mudira loo xamee ne da koy lor wal muusi ak loo xamee ne dañ koo tooge bil basmalata te fekk boobu mi ngi wax bismillahi rahmaani rahimi laa a as jeexatal fii ci moom darun benn ak lor de bisikiril basmalati ci saw bug tudd gim tudd bismillahi ma rahimi de mu ne képp koo xam ne yaa ngi lekk loo xamee ne xëy na sax posonuñ ko waaye mën na laa lor am na ci lekk yi loo xamee ne kenn posonul ko waaye lekk ga ci boppam day lore waaye am na ci lekk yoo xam ne itam mën nañ koo poson jox la ko. nee na boo ci tuddee bisimilah rahmaani bi donte day lore wala ñi tooke ko wala ñi poson ko sax tudd gi nga tudd bisimilah rahmaani bi boo ko lekkee doo yëg ne sax lii dañ koo tooke wala dafa am luy lore ngir lan bisimilah rahmaani gi nga tudd moo la may kaaraange ga de. kama ana sayidna comme li nga xamee ne noonu la nekke ci sunu sànq bi Omar ibnul Xataab rëdd yàlla doole gërëm allahu yàlla taala yàlla muy aji kawe anu wëlis ko sari ba naan sari ba naan na asuma tooke bil basmala fekk bam koy naan ma nga wax bismillahi rahmaani rahiim hiina arsalahu ci waxtu wa nga xam ne na ko a nasaraan nasaraan bi illay jëmee ko ci moom fa qaala mu ne bismillah tudd baat bismillah falam yu asar jeex defut jeexit fii ci moom waaw su mu tooke ga nee na Umar ibnul Xataab benn nasaraan da koo mosoon a loo xam dañ koo tooke mu naan ko waaye rek ba mu koy naan dafa wax bisimilah nee na ne sax waaw lii dañ ko tooke amul benn jeexit bu mu def ci moom waxu kee nettalees na àndoon ak moom kaana nekkoon li abi muslimin alxawlaani kooku ñuy wax abi muslimin alxawlaani nekkoon na fa moom jaareetun jébbeer bu jigéen. tubxiduhu boo xam ne dana ko bañ fa kaanat waaw nekkoon na moom moom jébër bu jigéen boobu tasqihi di ko nandal asuma tooke te falaa yu asiru du def benn effet benn effet jeexit fii ci moom fala ma taala ba yàggee xaliha ci moom saari ko loolu xaala ndaw si wax loxo ñeel ko na ko inni man kat saqaytu ko nandal naa la asuma tooke samaanan ci jamono tawilan ju yàgg waxuwate moom tooke bi laa yu deful benn jeexit fii ko coow mooy rayut la fa qaala mu wax laxaan ñeel ndaw si lima sa qaalat lu tax lu nga wax lii li annaka naka yow sirta mujj nga say xan di màggat waaw di mag kabiran mu mage fa qaala mu wax laxaa ñeel ndaw si na ko li ani man aqul wax naa xindal akali jamono jamay lekk wasur bi ak naan bismillahi rahmaani rahim suma axtaqataa suma topp mu goral ko nee na ba tey nekk lañ na abi muslimin alxawlaani waaw dafa nekk toon benn jébbéer bu jigéen boo xamee ne da ko bañ lool mujj jébbéer bu jigéen bi di ko nandal li nga xam ne moo di tooke mu gis na na du def ci moom benn effet te xam ngeen ne tooke ku ko naan boo génnee ñu xam ko boo ko naanee sax man nga yem foofu sedd guy ba ndaw si yàgg defe nag te def jotul ko dara jotul ko dara jotul ko defut ci moom benn jeexit mu ne ko ndaw si ndaw si ci boppam na ko man nandal naa la tooke jamono ji yàgg te gisuma ci yow dara lan moo waral lii te yow mag nga nee na ko abi muslimin alqawlaali na ko man kat su may lekk wala may naan damay wax bisimilah mu dal di ko goreel foofu <laughs> xoolal loolu kon num kéemaane kon bisimilah ci la lépp nekk waan saydina jëlee nañ ci sunu sang bi ibnu abbas radi yàlla doole gërëm allahu yàlla taala yàlla may ji kawe xanu walis leen walis leen ñoom ñaar ann xoon na xaala wax na ne yëkkoonu dana nekk li ko li ñeel lépp lëf asaasun fondement waaye wa asaasul quraani fondement alquran alfatihatu mooy fatiha wa asaasul fatihati fondement fatiha bismillahi rahmaani rahim mooy bisimilah rahmaani rahim mu ne fa isas takkayta ndem jàmbat nga bilal xalil ràgg-ràgg kon nag maa ngi lay dénk bil asaasi fondement bi kon tuswa des na la saafara bi ni laay ci ndiglu suñu borom taala yàlla muy aji kaw de mu ne nañ ci sunu sang bi ibnu abbas radiyallahu anhu radiyallahu taala anhuma dégg nga leen gërëm moog yonent bi salaay salaam moo wax ne mu jëlee ci yonent bi mu ne mbir mu ne am na fondement fondement mooy tabax bu ne boo koy tabax dafa am fondement mooy luy dëgëral mbir yi kon loo gis rek am na fondement waaye fondement alxuraan mooy fatiha waaye fatiha nag fondement mooy bisimilah rahmaani rahim mu ne kon boo amee benn feebar bu la jaaxal nga koy jàmbat maa ngi lay dénk fondement bii di bisimilah rahmaani kon dana la saafara moo aw lim bi nga xam ne borom xam-xam yi danañ ko ciy joxe di ko bind moo xam li nga xam ne moom dañ koy jàng saa boo koy jàng rek suñu borom lan la saafara ndax mooy fondement waaw fatiha waaw kon mu ngi noonu de mën a gis rek am na fondement fondement wu alquran mooy fatiha fatiha lan mooy fondement am ñu ne bisimilah rahmaani rahim kon feer boo mën a am rek bisimilah rahmaani ma mën na ko faj ci ndigalu suñu borom. mu ne xaatimatul lii nag ak mottali la boo xamee ne. tataxalaqu dana aju rek bi fi bax di ci wuñi li nga xam ne mooy lenn ci ay sekkerem a daqiqa yëda way sew al maxrufati yëd yuñ xam inda ahlil xaqiqa fa ñooñ xaqiqa ihlam kon na xamal wa faqani yàlla na ma tawfiqal allahu yàlla taala yàlla mu di aji kawe wa iyaaka ak yow mi may topp kon lii ba tey nee ne njëriñam doon wax lenn ci ay njëriñam jeex na mu ne lii nag ak mottali la goo xamee ne dafay aju rek ci lenn ci ay sekkeram moom lay wuññi bisimilah rahmaani rahim sekkere yi nga xam ne mooy sekkere sew yi te mu doon sekkere yoo xamee ne ahlul xaqiqa ñi peeg xaqiqa ñëpp xam nañ ko de mu ne man mii di ko nettali nag kon a ah, yàlla ma yàlla defal tawfiq ci nettali gi ak yow mi koy déglu mu ne ana max naa xawli humo naka max naa ahlul xaqiqa seeni wax ne albaahu baaxug bisimilahi rahmaani rahiim gi baha ulay mooy taarub yàlla taala yàlla mu yaa kawe xusnoo ak rafetaayam ba wa jamaaluhu ak taaram wa kamaaluhu ak matam ga mu ne ahlu xaqiqa ñëpp seen wax daal moo di baaxug bisimilahi rahmaani taarub yàlla ak rafetam ak jamaalam ak taarum ak mat gi mat sëkk taaru mat sëkk te du ñaw mukk dara du mànk ci jëmm ja ñu ne baagi daal lay tekki mooy taaru gi yàlla taaru léppam taaru rafet gi léppam rafet jamaal gi léppam jamaal ak mat gi léppam mat ñu ne kon baagi daal loo lay isaara waaye fa yadxulu dana tàbbi fil ci biir wax ji insuroona sifatan ñaar fukki melo li mawlaana ñeel sunu borom tabaaraka yàlla muy yàlla mi nga xam ne barkeel na wa taala tey aji kawe am na ñaar fukki melo yoo xamee ne danaa la ko jàngal léegi waaw ndax melo la yoo xam ne yëpp dafa yell ci jëm yi suñu borom ji kon day tegtale ne baag yi loolu lay firi maam matuk yàlla ak taarug yàlla ak rafetug yàlla ndax ñaar fukki mel yi ma la bëgg a jàngal ñaar fukki mel yi yëpp loolu lay jàngale de te yàgg nañ koo jàng ci xasida yi nga xam ne mooy téere yi nga xam ne téere tawxiid yi la boo ci demee yëpp da mu ngi tàmbale wax yi te ñoom al wujoodu mooy am gi yàlla am te kenn amalut ko wal xidamu ak jiitu gum jiitu taxut fu wal baqaawu ak des gi mu fee des te du faatu wal muxaalafu ak wuutanteeg ak wuute gi mu wuute lil xawaadisi ñeel way sos yi de wal xiyaamu ak taxawee gi nga xam ne moom lay mën a taxawee bi naf si jëmi boppam ji wal wax daan yitu ak wéet gi mu wéet ci melokaanu jëmm ji ak melokaanu jëf ji jëfinu yàlla niru te benn jëf melu sun borom kasaalika nako noonu kon buñ ne alwax daan it mooy koo xam dafa wéet ci melokaana wéet ci jëmu wéet ci jëfin wal xudratu ak kattan gi nga xamee ne mankiwu dara tëliwu dara wal iraat di borom coobare ji lu ko neex def te du tàgg kenn wal xel mu tey aji xam-xam boolem xam-xam yi da cee dañ kumpa wal xayaatu tey aji dund ji te du faatu wasamoo tey aji dégg lépp wal basaru tey gis lépp wal kalaamu te doon koo xam ne bokk na ci melokaanam ay wax ak wax day wax wa kaw ak nekkam moom yàlla ba tey xaadirin di am kattan wa muridan aji namu ji wa xaaliman tey aji xam ji wa xayan aji dund ji wa samiyan tey aji dégg ji wa basiran tey aji gis ji wa aji wax ji waa wa subooti xaasi yi saxuk melokaan yi ci yàlla yeltasimu danañu war de waaye nag naf ya muqaabiliha dàqu ya nga xam ne dafa jàkkaarloog ñoom minal mustahilaati di bokk ci way joom di tukkee ci way jomb ña listihaalati ngir jombuk jamhe di day ni waaw ñaari safaan yi mu ne kon nag ahlul xaqiqa loolu ñu wax muy niñ déggee baagi mooy taarub yàlla ak mat gi mat ak rafet gim rafet mu ne kon ñaar fukki melu yi da ci tàbbi buñ ne yàlla al wujudu la mooy ki am te kenn amulul ko loolu day tegtal ak matam ndax ku dul yàlla am nga te dañ laa amal moom nag su fekkee dafa am te kenn amulul ko kon loolu day tegtale matam ñu ne yàlla mooy ku fi jiitu te amul fu mu tàmbalee kenn ku nekk am na jamono nekkoy fi woon dañ laa amal kon buñ ne yàlla mooy ku fi jiitu te amul fu mu tàmbalee te amul fu muy yem kon loolu day tegtal ak matam buñ ne mooy ku fi des du faatu mukk te ku yàlla sàkk ku ne rek lu dul yàlla rek yàlla moo la sàkk a wax na ko mahal baqaa'i wa xayrullaahi lillaahi de lahul wujuudu la si xarsaanoo qidamun mahal baqaa'i wa xayrullaahi lillaahi kon buñ ne diw rek waaw kooku kon nekkut ku mat dëgg-dëgg de yàlla kon mooy ki mat day tegtale mooy ki mat mooy ki fee des te du faatu waaye mooy ki wutek mboolem lu sosu lu sosu rek yàllaa ko sos te moom dafa wuuteeg lépp loo xam ne dafa sosu moom suñu borom niree wut dara lu ñuy wax tamaasul kon koo dégg am na kum niroog moo xam jukku moo xam moo xam melokaane yëpp na kum niroog yàlla na niru waaye ak mën a taxawee gim taxawee boppam koo gis rek waxtu guneem taxawu nañ ko ba mu faatoo taxawu nañ ko léeg-léeg mu feebar ñi di ko taxawu yàlla nag mooy ki man boppam mooy ki dellu ci jëmi boppam ji soxlaalul kenn di ko taxawu wax mooy alwaxdaaniyatu mooy ki wet ci melokaanu jëmm ji ak melokaanu jëfin wi jëmm jeeg melo yeeg jëf yeeg yépp da ca wéet kenn du ko ci fekk jëfi yàlla melo wa lépp da caa wéet de ak jëmm ja siblaat moo tax mu daan wax ne xool la si goo jàng ci alquran la ca teg loolu mooy jëfi yàlla mbindeef manut ko wa huwa laa fi samaawaati ndax mbindeef mën naa bind asamaan déedéet foo ko jàngee rek huwa huwa rek kooku mooy jëfam kenn manu ko de kon loolu moom dañuy wax an nafsi ak salbiya al wujud al qidam al baqaaw ak muxaalafa al qiyaam bi nafsi ak li nga xamee ne moo di al waxdaaniya de juróom benn yooyu moom la ñuy wax juróom yi mooy salbiya salbiya mooy alqidamu albaqaaw ak almuxaalafa alqiyaam bi nafsi alwaxdaaniyatu benn bu njëkk bi di wujjóor ñu koy woowee nafsi muy turu jëmm ji dafa am li ñuy wax nag almahaani almaxnawiyaat almahaani mooy qudratu iraada xelmu ayaatu samho basaru kalaamu juróom-ñaar yooyu ñu ne mooy borom kattan li kon mooy borom nammel li waaw ah, doomu aadama da koy force ci dara déedéet kenn du ko force ci dara mooy ki nga xam ne day def lu ko neex rek faalu li ma yuridu te ba noppi nag te du tàggu kenn doomu aadama nag léeg nga am bëgg-bëgg di tàggu nit di diisoog ndax yàllaa ko digle yàlla moom mooy ki xam lépp te fekk xam-xam yëpp mooy ki dund te du faatu mooy ku dégg lépp kem la yàlla ci moom mooy ku gis lépp kem la yàlla ci moom mooy ki nga xam ne bokk na ci ay melokaanam muy wax ndax alquran ci waxam la bokk kon buñ ne alqudratu irada elmu xayaatu samho basiru kalaamu loolu juróom-ñaar la mu tudde almaani almaani dafa am lu ñëw almahnawiyaat yoo xamee ne ci juróom-ñaar yi di almaani ci la bayekoo de te mooy qaadiran muridan aliman xayan samihan basiran mutakalliman lii moom tur yi rek la qudratu mooy qaadir boo ne iraada mooy murid boo ne mooy alim boo ne mooy xayan boo ne samho sami boo ne basaru mooy basir boo ne kalaam mooy mutakalim kon juróom-ñaar yi dañoo génne ci juróom-ñaar yi juróom-ñaar yi di juróom juróom-ñaar yi di almaxnawiyaat dañoo génne ci juróom-ñaar yi di almaani yi de mu ne kon saxu melukaanu yi aaw day tëq ci jëmi suñ borom bi kon day wane ta rek ak matuk yàlla waaye itam nag yi nga xam ne dafa jàkkaarloo moom dafa am yeneen ñaar fukki melu yoo xamee ne ñaar fukki melu yi nga xamee ne dañoo sax ci yàlla noonu la ñaar fukki melu yooyu dàq ci jëmi suñ borom te moom la lay limal si nii yoo xam ne dafa jomb aaw te du nangoo sax ci jëmi suñ ko dafay dàq ba faw yii mu mujj te nangu ñee dàqu moo tax kon mu ne ñaar fukki melu yi yëpp di al wujud alqidam albaqaw ak muxaalafa ak alqiyaaw bi nafsi ak alwaxdaaniyati ak qudratu ak iraada ak xelmu ak xayaatu ak samu ak basru ak kalaamu ak qaadir murid aalim xayan samihan basiran mutakaliman mu ne su ko defee wa subut xaasi yaltasimu saxu yi tuur ci jëmi sun borom ji day taxoog moom ba faw te du nangoo dàqu waaye nag am na yeneen yoo xam ne dafa dàqu ci jëmi sun borom ji moom la lay limal si nii te loolo ku ne war na ko mokkal xam li yelli ci yàlla xam loo xam ne moom safaan bi la moom moo tax mu ne nafiya muqaabiliha dàquk seenu jàkkaarloo nag mooy jàkkaarloog ñaar fukki yi minal mustahilaati muy tukkee ko ci way jomb ñi sun borom listihaalati jamhi di day ni ngir jombuk mboolem safaan yi de waaw ngir jombu mboolem xeeti safaan yi de kon mu limal la ko mu ne wa hiya moom bu ci njëkk alxaddu mooy ñàkk danga waxoon ne yàlla ku am la te kenn amul ko kon nga toog ba yàgg naan yàlla dafa ñàkk waaw loolu moom mëntu am de mustahil la kon wal hudoosu wala koo xamee ne dafa sosu de danga waxoon ne yàlla mooy ki nga xam ne mooy xidam mooy ko jiitu taan mu tàmbalee kon yàlla nga naan dafa sosu loolu mustahil la wal fanaaw ak jeex de danga waxoon ne yàlla mooy albaqaawu kon ñi dem ba yàgg nga naan yàlla waaw dafay daal di jeex te yaa waxoon ne moo fi des te du faatu kon bu fekkee fanaawu la dafa jomb ci yàlla ya waxoon ne wal mu maasalatu ak di aaw niroog kenn niroog lenn lum sàkku danga waxoon ne almuxaalafatu mooy ku wutanteeg lépp lum sàkk moom kenn rek la de kon boo waxee ne yàlla mu maasalatu la kooku na xam ne kon mustahil la ci yàlla danga waxoon ne ba tey yàlla mooy wal qiyaam bi nafsi kon nga naan wal iftixaaru yàlla day xaajoo jëm ci kenn wala lenn kooku mustahil la de ndax da ngaa waxoon mooy ko mën a taxawee boppam. ba tey kon da ngaa waxoon ne yàlla mooy alwaxdaaniyatu mooy ki wéet ci melokaana jëmmu mais mooy ki wéet ci jëmmu wéet ci melokaana wéet ci jëf kon nga wax naan yàlla wa taaddudu yàlla dafa am limite fu mu yem kooku mustahil la ci yàlla wala gisu wala lu mel ni nga le yàlla dafa tëli dafa lottu. waaw kooku mustahil la ci yàlla de ndax da ngaa waxoon ne yàlla mooy borom xudratu gi de mooy koo xamee ne tëliwu dara kon bo waxaatee ne xajisu la mooy dafa am lu mu tëli rek loolu mustahil la buum la indil ca melokaan yi yi nga xam ne moom duñ dàqu ci jëmmi suñu borom ji dana indil seeni safaan yi nga xam ne dañoo dàq ci jëmmi suñu borom ji da ngaa waxoon ne ba tey yàlla mooy wal iraada mooy koo xam ne day def lu neex waaw te du ca tàggu kenn kenn du ko force ci dara kon boo waxee ne wal karaxatu yàlla dañ koy forcer ci dara kooku kon mustahil ci suñu borom dangaa waxoon ne yàlla mooy alxelm mooy ku xam lépp mooy kii dañ kumpa kon boo ñëwee ne yàlla mooy wal jëxlu ak yéer dafa nekk ci moom kooku dafa jomb ci moom dangaa waxoon ne ba tey yàlla mooy ki ne mooy wal xayaatu mooy kii dund kon boo ñëwaatee ne wal mawtu yàlla day faatu kooku mustahil ci suñu borom subhaanahu wa taala dangaa waxoon ne yàlla mooy wasamho kon boo ñëwaatee ne sun borom wa sama mu dafa doon koo xam ne ku tëx la kooku dafa jomb ci sun borom dangaa waxoon ne wal basaru yàlla mooy ku gis lépp kon boo ñëwee ne wal xamaa yàlla mooy ki nga xamee ne dafa gumba loolu dafa jomb ci moom de dangaa waxoon ne ba tey wal kalaamu yàlla bokk na ci melokaanam ak wax waaw kon boo ñëwaatee ne wal bakmu yàlla dafa lu kon loolu mustahil la ci moom de wa kaw noo ak nekk sun borom taala yàlla di aji kawe xaaji san di aji tëli ji ba tey dangaa waxoon ne waaw moy xaaji san rek dangaa waxoon mooy aji am kàttan ji mooy turam yi dëgg-dëgg mooy ki am kàttan kon nga ñëwaat naan yàlla xaaji san aji tëli la loolu dafa jomb ci yàlla dangaa waxoon yàlla muridan la mooy aji namm ji borom coobare joo xam ne lu ko neex def te du ci tàgg boo ñëwaatee kon ne aw kaarihan mooy koo xamee ne dañ koy force ci dara kooku dafa jomb ci yàlla dangaa waxoon yàlla xaalim la kon boo ñëwaatee ne aw jaahilan aji réer la mooy koo xam ne xamul dara te dangaa waxoon ne mooy ki fekk xam-xam yëpp kon loolu musta yi la ci moom danga waxoon ne yàlla xayan la mooy aji dund ji kon boo ñëwaatee ne aw mayitan mooy aji faatu ji kooku mustahil la ci moom danga waxoon ne yàlla samih la mooy aji dégg kon boo ñëwaatee ne aw asama mooy aji tax ji kooku mustahil la ci moom yii yëpp day dal mbindeef nag doonte du dal yàlla dégg nga de danga waxoon ne yàlla kooku basiran la kon boo ñëwaatee ne yàlla aw axma aji sol maxala kooku dafa jomb ci moom dangaa waxoon ne sunu borom subhaanahu wa taala mutakallim la mooy aji wax ji kon boo ñëwaatee ne sunu borom subhaanahu wa taala mooy mooy wal bëkk mu aji lu la loolu dafa jomb ci moom de. wala wala aw ab ka moom aji lu la kooku dafa jomb ci moom de kon ñaar fukki melu yëpp dafa dàqu ci jëmi sunu borom ji muy xaddamu xuddoosu fanaa'u al iftiqaaru wa taxadudu wal xajisu wal karaatu wal jaxlu wal mawtu wa samamu wal xamaa wal bakkamu haajisan kaarihan jaahilan mayitan asama axama abkama kama yëpp ñaar fukki melo yi loo xam ne war nga ko xool ba xàmmee ko xam ne dafa dàqu ci jëmbi suñu borom ji te nangu nangutu ànd ak moom mukk yee nag moom dañuy taq ci suñu borom subhaanahu wa taala te duñ tàggoo moom kon dafa am loo xamee ne nangu na dàq te dootul taqati am loo xamee ne moom dafa nangoo taq te dootul dàquti mukk ci saayir ak ci baatin kon nag na nga xamee loolu ne xam ne tur yi yëpp dañoo jomb ci suñu borom dañoo def muqaabala tur yee mooy yi nga xam ne dañoo yell ci jëmi borom yi yëpp dàqu ci moom moo tax mu ne naf ya muqaabiliha tur yee yim jàkkaarloo nii dafa dàqu ci suñu borom ji ndax mooy safaan yi mooy mooy jamxe di day nii boo xoolee bi safaanam mooy yii kon yii yëpp ay safaan la yoo xam ne mën naa dal dooma aadama nag ci li nga xamee ne jaayis la waaw li nga xam ne jaayis la na ci lay dugg mu ne ba tey wa daqala taabina fil kalaami ci wax al jaayis jaayis woo moom jaayis fi'lu kulli mumkinin mooy jëf ak lépp lu am rek waaw aw taw wala ak baayam boo déggee ñu ne baatab jaayis mooy lépp loo xamee ne mbir la rek mbir mu mën a doon rek. waaw kooku jaayis lañ koy wax lu bokkut ak al mumkin ci àq ci àq yàlla mooy loo xamee ne dafa dagan ci moom lu bokkut ak mumkin nag mustahil lañ ko tuddee mooy du dagan buñ ne xayrul mumkini mooy al mustahilu alasi laa yajuusu moo tax buñ ne addahat kullul umuri min al ay muhtamalatu wa bil imkaani hudusa ay lam tuat min al sos gim sos barab yëpp kon kooku kenn du ko limaale mu bokk ci mustahil yi bu ko neexoon ñàkk sàkk mbindeef waaw kon sos gim sos mbindeef waaw kenn du wax ne mantoon a ñàkk ak yu mel kooku moom la neex rek moom yàlla de sos gim sos asamaan wala suufa ak lépp loo xam ne sos na ko rek kooku moom la ñuy wax jaayis de kenn du wax ne mënoon naa ñàkk wala nangam da koo neex rek mu def ko rek ci kaw coobareem kon loolu la ñuy wax jaayis moo tax mu ne kon dafa am lu ñuy wax jaayis am loo xamee ne nag moom lii mu la jàngaloon muy melokaan yi nga xam ne moo sax ci suñu borom te du naqu du nangoo dàqu mukk jëmmi suñu borom bi am loo xam nag dafa nangoo dàqu te du sax ak jaayis ñett yooyu rek ñoo am de. mu ne nag mu ne nag li anal kalaam naka wax laa yetimu du mat mukk ilaa bi saalika lu dul lool de. wax mom du mat mukk lu dul ak loolu de waxiila kon ba tey waxee saat na ne albaa u baaw bisimilahi rahmaani rahim gi bukaatul xosaati mooy jooy woy mooy yàlla ñi yowmal qiyaamati bisab yowmal qiyaam bi de kon yàlla kenn du ko wax benn wax lu nga wax ko lii mu doon wax yu mat de muy la ko tàmbalee wu joodu ba ci mu takkalim de kenn mëntu wax yàlla melukaanu yu mat lu nga wax ko de mu ne nag wax nañ na baaji ba tey mooy mooy kayti yàlla yi yowmal xiyaam bu mbugal mi taree jooy gi ñuy jooy ñi ne loolu lay baagi di tekki waxi la wax nañ ba tey alba oo ne baagi baraatul muminina mooy dëñëg julit ñi minal xulóot ci biel fii naari ci biir safara ñi ne baagi li muy tegtale mooy jullit ñi nga xamee ne xëy na mooyoon nañ yàlla ah ba seen bàkkaar xaw a jégg doyo ñii di leen dugal ci safara di leen bugal waaye duñ fa sax mukk lu dul dañ leen delluwaat ci aljana ñu ne baagi kon loolu lay junji waxiila waxas na ba tey albaa u baagi baraatullahi mooy dañug ta taala yàlla muy aji kay wa rasuli ak yonentoom bi sala yàlla jule alaaw yàlla taala yàlla muy aji kay ali ci moom wasalama tamu dolli koolu dañ giñ dañ minal musrikiina ca bokkaalkati yàlla yi de waxaat nañ beneen wax ba tey ñu ne baagi li muy mooy yàlla ak yonent bi dañ giñ dañ ci mboolem bokkalekat yàlla yi te nga jàng ko ci njëlbeenu suuratu tawba baraatun minallahi wa rasulihi ilal lasiina xaaxatum waaw noonu ko yàlla waxee ci suuratu tawba ñu ne kon loolay baagi di junji waxiila waxes na ne al baa u baagi baabu hoo buntam al miftaaxu mooy caabik li taalibi ni way sàkku ñe de kama xaala comme ni nga xam ne noonu la waxee xale yi yàlla doole nekk asalaatu julli wa salaamu ak dolli ne inna laa naka yàlla taala yàlla mi aji kawe yëqoolu wax na baabi sama buntu miftaaxun ab caabi la liman daxaani ci képp koo xamee ne dana ma ñaan wabil jumlati nekk na ci jumla bi nag ana minal maxloomi bokk na ci lu ñu xam de ana siral basmalata naka sekk rek bisimilahi rahmaani rahimi ku loo lépp fii ba i nekk na ci baa googu nga xam mooy tomb gu nekk ci bisimilahi rahmaani yokku na ci baxdum lenn ci ñoom ne ana siral ba yi naka sekkereeg baagi fii nuqutatin nekk na ci biir tomb alati tomb ga nga xamee ne taxtaxaa nekk na ci suufam indal xaarifiina fa xaarifiina billahi mooy ñi nga xam ne dañoo xam yàlla de moo tax mu ne wax nañ na baagi mboolem ñi saku yàlla waaw loolu lay baagi di tegtale mooy buntu ñiy wut yàlla di sàkku yàlla moo tax ne wax nañ na baagi mooy buntub caabik ñiy sàkk sun borom comme ni yonent bi waxee ne sun borom ma wax ne sama baagi daal caabi la ci képp koo xamee ne mu may ñaan mu ne kon bi nekk na ci lu ñu xam ne kon siru baagi lépp siru basmala lépp daal kon jumla boobu day tegtale ne kon siru basmala gi lépp nekk na ci ron baagi comme sun borom ma wax loolu waaye boroom xam-xam yi yokkaat nañ ci ne secret baagi nekk na ci biir ci biir tombu baagoogu ah waaw nekk na ci secret baagi moo nekk ci biir tomb gi nga xamee ne fa xaarif yi nii de xam nga tey boo jàng xaarifu xaarifullahi amut xaarifu billahi maanaam kon ñi ne baagoogu xaarif yi ni ci la ñuy xamee seen borom parce que mooy bunt bi rek ci la ñuy xamee seen borom xam nga xaarifu laay ku xam yàlla amut xaarifu billaahi la ñuy wax mooy koo xamee na xam na yàlla waaye tuuti rek la xam ci yàlla moo tax mu wax loolu de moo tax noo xila waxees na ne albaa u baagi baabu xoo buntam aaw albixtaahu mooy caabeeg li taalibiina ñeel way sàkku ñu ñiy sàkku yàlla ñëpp aaw seen bunt bu ñuy jaar yàlla mooy baagoog de kama xaala comme ni nga xam ne noonu la waxee xale yàlla na doole nekk ci asalaatu juli wa salaam ak dooli góolu te mooy yonent bi wax na ne inna laa nak yàlla taala yàlla mi aji kaw yu xool wax na baa bi sama buntu mooy sama baa rek miftaaxun ak caabi la liman daxaani ci képp ku may ñande képp ku may ñandal caabi ji moy mooy baa nga xam ne waaw mooy caabi ji saa koy wax rek yaa ngi tijji caabi ji wa bil jumlati kon nag jumla bi ana minal maxloomi nekk na ci lu ñu xam ne anasiral basmalata naka secret bismillahi rahmaani rahiim ku loolu lépp fi bàyyi nekk na ci baagi waaw buñ sukkandikoo ci wax yàlla jooju daal kon dañuy xam ne daal jublu bi daal mooy ah siru basmala yëpp nekk na ci baagi de wasaara dolli na ci baxdum leen ci ñoom ne anasiral baa yi naka secret rek baagi fii nuqutati nekk na ci biir tomb alati ba nga xamee de tax taa nekk na ci suufam indal xaarifiina fooy xaarifi fa xaarifiina billaahi de ñu kon xaarif yi nii dëgg-dëgg baagoog ci ñu xamee seen boroom moo tax ñi naan ñi leen di wax xaarifu billahi waaye wasiru xaasil xuruf yi mbootum yi xaraf sekere yi xaraf saahirun aji feeñ la hendaman fa ña nga xamee ne kasafa dindil na leen allahu yàlla taala yàlla mi aji kawe andu wëlis ko alxita ak muuraay wala yéen bi xita du yàlla ad yu ad yu saar dolli alaama ci kaw nga xamee na sa karnaaw doon nañ ko mu ne nag lii mu wax ne sekk rek xaraf yi daal moom muy bisimilahi rahmaani rahim waaw ñi yàlla muñil ci raay ba dara doxul seen digganteeg seen borom waaw loolu moom dafa leer ci ñoom naññi waaw ah, kon nag jaaduwut ñi ci yokk loo xamante doon nañ ko ci njëlbeen lañ ci jot wax daal doy na sëkk waaye dal wa max naa sana'u fi qawlihim wa siinu sana'u xonduhu wa rifaatu ila anna xolwa allahi taala munasawun la xolwa jihatin wala istiqrarin fa innama almuraadu bi xolwi taala munasawun anil jihati wal makaani mu ne waaye wa maxna sana'u ñi ne waa baatab maxna sana'u fi qawlum ci seen wax ñi ne wa siin gi siin gi daal sana'uhu kaweeg yàlla xolluhu ila ana xolwa allahi naka kaweeg sun borom taala yàlla mu di aji kawe ji mun na soxun lu ñu sëril la ah maanaam doonul lu ñuy jàppee xeeti kawe yi comme ni nit ñi di kawe ni déedéet laa xooloo jaate nekku kaweeg wàll ñu ne kawe rek ñi dafa am kawe ci wàll wala ci barab ci nangam day am loolu mbindeef lañ ko xamee waaye nag kaweeg yàlla moom buñ ko waxee rek jubluwuñ kawe goo xamee ne kaweeg wàll lay doon wala istiqraarin wala ak saxal de ñu ne yàlla dafa nekk ci barab nangam àllab kaañ wala réewum sàngam ngir foofu dafa yaatu foofu la xaj déedéet jubluñ ci loolu de moo tax ma ne fa muraadu naka nameelug bi xol wi ak kawe moom yàlla taala yàlla mu yaji kawe ji mooy mun na sowoon ku ñuy sëril la ani jihaati walis wàll wal makaani ak barab mu ne li namu ci maanaa yàlla waaw mooy ku kawe maanaam ku ñuy la ci wàll maanaam kaweeg wàll wala kaweeg barab ni ko doomu aadama di defee nga xam dañ naan ci wàll gii la kawe wala barab bii la kawe déedéet yàlla moom jubluñ ci loolu ken du ko istixraaral wala ñi koy wax naan kaweeg barab la wala kaweeg wàll la li àndoo naka moom yàlla taala yàlla mu yaa ci kawe xabla an yaxluqu njëkk muy sàkk al makaana barab wal jihaati ak wàll walaano nooy na ala makaanin ci kaw nin ci kaw walaano nooy na ala makaanin ci kaw barab ali ci moom wa innama xayet na kon nag tënkees nañ al sanaa baa nag baatab sana baatab sanaa bil maddi ci tàllal kon li nox li nox tay sa ngir ñu wattandiku mina sanaa bil xasri ci gàttal ko allati mooy li nga xameen huwa moom nuurul barqi leeru merax lay tekki almaxloofu lu ñu xam la kon waxiila wax nañ ne siinu siin gi samiha duhaa yi mooy ku dégg ñaan yépp waxiila wax nañ ba tey siinu siin gi ñu ne siruhoo mooy mbóotam ma almaktuumu ma buñ nëbbu kama fi xawli comme ni mu ko waxee moom sun borom ci alquran taala moom yàlla mi yeji kawe je ne wala yuyitoona kenn du peeg bi say in dara min xel mi ci xam-xamam ila bi ma saa lurul la ko neex de waxiila wax nañ ba tey ne asiinu siin gi samial aswaatam mooy ku dégg baat yëpp waxayra ak lurul baat yëpp waxiila wax nañ asiinu siin gi sutruhoo mooy suturaam simi suturaal xanin xosaati wóolis wooy mooy de kama fil xadis comme ni mu ñëwee ci xadis mu wax ne inna laa naka yàlla taala moom yàlla mi aji kawe yoxoolu wax na ne sitiri sama sutura mas boolun lu ma sëmbaxtal laa ala man xasani ala man xasaani ci kaw ñi nga xam ne dañ may mooy de waxiila wax nañ ne as siinu siin gi sariixul xisaabi mooy ku gaaw nu muy rek lee ay jaam ëllëg yowal xiyaam waas naanu siini ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci siin salaasatun ñett lañ tusiru ñu ne day junji ilaa xawlihi jëm ci waxi yonent bi sala yàlla na julli allahu yàlla taala yàlla mi aji kawe ci yonent bi wasalaam tamu dooli koolu wax ji mu waxoon ne alxilaafatu ñi may wuutu ba di sama gannaaw salaaso na sanatan diiru fanweeri at lay doon de kon daal mënu suñ borom kenn doo xa kenn du ko wutal ab barab wala ñi ko wutal ak wàll ndax moom yàlla laata muy sàkk barab ak wàll moom yàlla moo noy ci barab yépp ak wàll yépp de kon kooku amul barab bu mu mën a nekk di déedéet moom kay moo nekk ci kaw barab yépp waaw moom suñu borom moo noy ci kaw barab yépp moo tax ñu tënk baatab sanaa ci tàllal ko maanaam def ci xamsa wëtu di ko baatab sanaa baatab sanaa rek day ki melax te loolu kon doonu loo xamee ne waaw lu jaayis ci suñu borom wala dafa doon luy sax ci suñ borom loolu kon mustahil la boo ne sanaa kon loolu day mel ni leerug melax te leerug melax lu ñu xam la mooy loo xam ne day kuy rek te leeru yàlla nag melu noonu moo tax mu ne tënk nañ baatab sanaa ah, ci tàllal ko bañ a wax baatab sanaa bañ a wax bañ a wax baatab sanaa ndax sanaa moom xam nañ ko bu fekkee dang nga koo gàttal rek indi xam sa gi sanaa moom li muy tekki rek jàngoo ci alquran mooy sanaa barqi ci sóoratu nuur te loolu leeru melax rek lay tekki te lu ñu xam la wax nañ ne ba tey siin gi mooy ko dégg ñaan ñaan yëpp moo ko ko dégg de wax nañ nañu siin gi mooy mbóot mi nga xam ne da koo nëbb kenn xamut ko comme ko comme ni ko waxee ci alxuraan ne kenn du peeg kenn du xam ci moom dara dara waaw ci xeeti xam-xam lu dul lu ko neex de moo la koy xamal de te mënoo xam léppam de wax nañ ne ba tey siin gi ne mooy ku dégg baat yëpp ak lu dul baat yi lépp la dégg de wax nañ de siin gi mooy mooy ka ci yàlla yi suturu sim leen di suturaal te du leen weer mukk comme ni yonent bi wa sallam waxee ne yàlla suñu borom de wax na ne sama sutura dama ko sotti ci kaw ñi may mooy wax nañ ne ba tey Chine gi mooy ku gaaw nu muy xisaabe ëllëg yamal xiyaam wax nañ ne ñetti bëñ yooyu nga xam ne moo nekk ci Chine gi ñu ne ñetti maanaam ñetti bëñ yooyu day junj rek wax yonent bi sallallahu alayhi wa bu mu waxoon ne bu fu bayee ko aaw diiru fanweeri at ñi may wuutu ci lañ may de. muy Aboubacrine Omar ak Ousmane Aliou seen xilaafa gi yëpp boo ko xoolee mooy al xilaafatu ba'da salaasuuna sana yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam de su ma takkoonu topp dana nekk mulkan di nguur goo xamee ne xadoo dan gu tar lay doon ndax dañ leen di tooñ di leen fitnaal lu ne waaw waaw kon loolu lay junj de ñu ne kon siin gi muy ñetti bëñ yooyu baatab siin xarafu siin boo ko ñetti bëñ la yor ñu ne kon day junj rek waaw fanweeri at yi nga xam ne moom la abubakarin omar usmaan aliyu wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye doon nguur goo xamee ne gu tar la ndax tooñ nañ leen fitnaa leen te ñoom ñépp dañ leen mujj ray de lii ab hadis la rek yonent bi wax ne alxilaafatu bandi salaasuna sanatan teg ci ne suma takkoonu mulkan hadoodan ñu ne ba tey wa indumati boo boole alba u baagi ila asnaani siini jëmee ko ci bëñi siin gi nee na tasiru kon day mujj rek arbaatan di ñeent fa tasiru su ko defee di junji ilal xulafaay jëmee ko ci jëmee ci xulafaayu ar arbaan yee ñeent saadaatina sunu sang ka ca jëkk abi bakarin mooy abi bakar wa xomaroon ak xomar wa usmaan ak usmaan wa aliyun ak aliyu radiya yàlla na doole gërëm allahu yàlla xanhuma walis leen aj meena ñoom ñëpp fa yejib war na tansimuhum ñi di leen màggal wa tawxiirum ak di leen wa mahabbatum ak di leen bëgg ndax wa annahum naka ñoom afdalu xalqilaahi ñoo gën ci mbindeefi yàlla yi taala yàlla mi aji kawe ji baxda nabi ina baxda nabi yi de mu ne waaw su fekkee nag dangaa jël baagi boole koog siin gi xam nga dangay am ñeent xaraf boo doon wax ci waxe ndax siin gi ñetti bëñ la boo ko booleeg baagi ñu ne kon day junj ñeent xulufaalu arbax yi muy abubakarin ak Omar ak Ousmane ak Aliou loolu yëpp dégg ni borom xam-xam yi la yàlla yàlla doon leen gërëm ñoom ñëpp kon nag ñoom ñëpp dafa war ñi di leen màggal bo noppi weeg leen bu wax lenn ci ñoom lu jaarul ak loo xamee ne dafa ñaaw loo xam ne kenn waru ko tudd ci ñoom dafa war ci ñoom ba tey ñi bëgg leen ndax ñoom ñoo ci mbindeef yàlla gannaaw bi gannaaw ba yonent yi jàllee ñoo ci mbindeef yàlla yi